Adja. nga lu PDF def. honorable Pape Djibril. Hmm. dafa estati. génn góor goo xam ne dinaa ko laaj moo léegi mu wan ñu góor gi ngi mu estati bañ bëgg koo yóbbu ci yoon estati moom defe naa du crime. déedéet. kum neex estati kum neex ndax man mi yow mi léeg-léeg mu estati la. Hmm, ci nga dëkk. léeg-léeg ma estati saa njóobu. Hmm. léegi nag góor gi moo dañuy wan photo bi Pape Djibril estati démb war nañu léegi. voilà léegi Pape Djibril photo bi la esati ñu ngi doon Pape Djibril Fall euh, officiel en même temps am nañu def na ko ci page Facebook am mais man jotuma koo jotuma koo gis léegi bi mu defee nag photo bi ñu bëgg leen a wan nag góor gi mooy kan ndax dafa am lu tax euh, ñu kii léegi moo da nga may indil deuxième vidéo bi fi góor gi taxawee di sensibiliser dangay ngay tëj son bi après nga illustrer noonu rek fi góor gi di sensibiliser booy passé fii euh, pour ñuy xool pour ñuy wax nan la ñuy def ak mi ngi nii pour nan lañ ma def pour diiñ bañ a topp nit ñi ak mbuux meeg ak yu baree bare bari kon góor gi ba léegi moom moo nekk nii léegi nag Modou bu loolu jàllee nag ba wane góor gi kon wane nañ Pape Djibril estati ko mu yore photo Pape Djibril wane waat nañ ko ci booy passé fi mu leen di sensibiliser góor gi ne day yóbbu Pape Djibril ci yoon ndax Pape Djibril da ko monté estati ko waaw Modou wan ma photo vrai bi wan ma photo vrai bi bi nga xam ne góor gi photo bi mu yoroon ban photo la góor gi yoroon voilà photo bi góor gi photo bii la yor léegi ñu def ci photo Pape Djibril Fall mi ngi nii góor gaa ngi nii ba léegi ànd ak booy passé fii góor gi photo bii la yor léegi nag fi ma teg porte plainte bi ba ni góor gi day porte plainte Pape Djibril Fall seeni lañ ciy àndal defe naa doomu maire Diall la Diall seen euh, moom la moom la defe naa ni seeni waa seeni def na ci benn vidéo mhm. di expliquer affaire bi fi mu tollu góor gi ba muy porte plainte après ñu lu ko dellu siwaat euh, dama jokkoo ak paa bi nga xamante ni moom moo jël photo Ousmane yëkkati ko ba pare jëlaat photo paa Diourou Fall yëkkati ko ci laa ko woon ne ko nag père ñun dañu bëgg a soppi réew mi am ci politique naxaate yooyu doxatuñ ci donc boo demee fee ñëwaat fii da ngay a yëkkati photo Ousmane baa nga yëkkati photo Pape Djibril mu ne ma man photo Ousmane laa yëkkati ma ne ko non ko ko loolu day indi ay xaajaloo suñu biir paa rek nee na day porte plainte am na lu ko naqar trop parce que moom xam na ni photo bu yëkkati photo Sonko la bi nag ba mu nekk photo Pape Diouf paa bi am na loolu donc anyway ñun daal gi jaru ko que euh, euh, li ñu bëggoon rek mooy mu leeral léegi xaaral ma dugaleen wax ci làmmiñam wala mi ngi noonu Adja kon lii la ñu indi tey Pape Djibril nag na nekk victime ci mbir yi ndax niñ ko monté defe naa yéen a jàpp ni paa bi la yëkkati noonu lañ ko defoon Ousmane Sonko ay jamono bu dee yéen a ngi gis am na bureau bu mu toogoon ñu gis benn photo bu sëriñ ca kaw ñëw ne waat ko feneen ñu gis photo euh, kii boobu te ñu rayoon ko ndeysaan te Ousmane Sonko di ko tudd lu bari walla dañ ko dañ ko rey eh, dañ ko rey Ousmane Sonko day jël référence lu bari bari bari ci moom Afrique ñu ñu gis ñuy monté que monté waat ay kii léegi nag bi li amee Omar la ñu wax ni góor gi dafay porter plainte ndax lii foto bii ñu ko yëkkatil du moom moo tax ma ni Pape mën naa nekk victime moom ndax bu gisee foto bi ak góor yëkkati ko mën naa am mu rafet ci moom mu jël ko estati ko mais kan moo monté vidéo bi ba mu àgg ci Pape Djibril ba mu estati ko loolu mooy wax ji waaye daal góor gi moom nee na yëkkatiwul Pape Djibril Sonko la yëkkati. Mhm. waaw mënoon na koo leeral rek yëkkatiwuma Pape Djibril Sonko laa yëkkati. Mhm. jël photo bi wane ko ah non boo yokk commencé woo ko naan ko góor gi politique bu sérieux lañ bëgg waxuñu tey nga yëkkati Sonko bu subaa nga yëkkati kii. non non non du xam nga des fois bu ñu alimenté débat bi sax dafa gën ci Pape Djibi. Hmm. le fait sax ñoom ñi poussé góor gi mu gën di ci expliqué naan Pape Djibi laa doon lii Sonko loolu ça arrange Pape Djibi am na sonk dafa egg benn niveau boo xam ne maanaam nga pancarte ko yëkkateeg ñàkk ko pancarte yëkkate mi ngi ci kaw. ki soxla yéeg ci kaw nag moo soxla pancarte jàmbur bi ñu monté mu jël ko di ko statique ndaxte dafa tàmmul ñu ko yëkkati ci kaw ok xam nga fi may waxee mhm. kon tey jii bu débat bi ñëwee ñu ne góor gi day porter plainte mhm. ça la l'affaire de Pape Djibi même bu nga ko ci porté woon plainte sax mhm. baax na ci Pape Djibi baax na ci ah mais mais promotion mais góor gi ki fo ki monté photo bi la war a porter plainte de waaw mais ki ko estati la gis parce que moom mënul dem ba egg ci ki ko monté parce que xamul kan la mais dafa gis ñu estati ko ñu gis montage Pape Djibi ci kaw mais bu woon góor gi du ma porte plainte mm. non du porte plainte parce boo xoolee benn bi bu dee bu sonk bi ci ful la paa bi ne waaw ci manifestation la waaw mais bu dee ci Pape Djibi gisoo kenn ci ginnaaw ah noonu la demee kon bàyyi ma ci xel de non non ci kii bi la Modou wanaan ñu ko. maanaam ñaari mooy nit yi quoi ñaari photo yëpp mën na ko. gis nga ñaari yëpp taxé même image la. ñaar yëpp même image la waaw même image la waaw. ñaar yëpp même image la. waaw léegi ñaar même image la. waaw mhm, fii la ful nekk waaw man fii laay man image bi laay wax. waaw fii la ful nekk. fii la ful nekk. Ah, ah. léegi comme mm. tey jii indi na débat bi pour man góor gi jëru woon nañu porte plainte. ok waroon am na yoo xam ne ngay bàyyi mu jàll. parce que nga def ko du la yokk dara. mais nga ñàkk ko def du la wàññi dara. Mhm. peut-être photo bi moo rafet. Pape Djibi soxla woon lu mel nii. Mhm. waaw maanaam boo gisee ñu mën a jël li rek moonte ko ci Pape bi rek ça am na lu muy démontré. boo ko dee jàngat ba ci biir mooy lu mënta am la. parce que looy jéggaani daf fekk mënoo tëgg. d'accord mais bu dee ni Sonko tey jii du benn pancarte pa bi la mais ay pancarte la ci am. Mhm. yu toll noonu. léegi nag bu dee Pape da ko statique parce que boo xoolee photo bi ñu ngi ko cadré photo bu rafet la ak ni ko góor gi gàddoo ni da ngay gis ni plan bi dafa rafet. Mhm. ku sañoon nag nekk ci place Sonko. te Pape Djibi nag bëgg naa nekk ci place Sonko. ok kon moo tax ñu dindi photo Sonko dugal fa Sonko photo mu jël ko esthétique ko. d'accord parce que lu baax nag ñëpp ko bëgg. macha mais pour man jarul débat ci biir patriote naan paa bi lu tax nga yëkkati kii di yëkkati kii. Mhm. te aussi tamit euh, danoo war a respecter paa bi aussi. parce que aussi ñoom waruñu ko laaj ay explication di ah, utiliser mais seeni nee ko nag affaire bi day sérieux waxuñu tey nga yëkkati kii suba nga yëkkati non non c'est pas ça c'est di nga terrorisme intellectuel boobu noonu hmm. il faut que gars yi nga may nit ñi ñu am seen liberté de choix même bu doon ni paa bi tey da ko def hmm. gàddu Pape Djibi où est le problème mais problème amu ci man gisuma ci daal lu jar a alimenté ba tax ay plainte di ci am ak yooyu hmm. euh, Sonko daal mooy mooy koo xam ne tey ci politique ku sañoon nekk ci place am. place am ay ja macha allah jërëjëf moom ma ngay jàppatu de. saa du ko yëg. waaw loolu non saa dina ko yëg dina koy bàyyi ci biir <laughs> en euh, tout Omar wax na ko léegi fa la jeexalee mu mel ni. góor gi xam naa li ko tax a génn bu yëfi noonu tekk du am problème mais xëy na appel mi jot mooy góor gi yow noo mën a ànd ak Sonko di yëkkati Sonko tey nga yëkkati Pape Djibril xëy na moo tax seeni ni góor gi nee na dafay porter plainte. waaw mais ñoom waruñu ko di waruñu ko di ërtal. Hmm. ërtal googu war naa mën a ñàkk di. ah mais fidélité dafa baax. déedéet fidélité dëkk ci dëkk bi. waaw dëkk bi Sénégal gi ñu dool fidélité dafay am. ah bañ a am. waaw toogal yow. amul surtout ci politique bi amul de paa bi nag wax dëgg yàlla ki mu yore Sonko la Ousmane Sonko la yor vraiment dëggantaan Ousmane sonk la yor. Uh-huh. kon donc man man ni nu def kay ba mu nekk Pape Djibril man mi sax daf maa na yàlla. mais yow mii tey yow. Ah. topp bu ko neexoon balaa émission bi jeex. bu ma illustré gi la. bu ma def loolu de. ah man may porte non yow dama ne bu la jaaxalee laa wax. waaw fa léegi. de man ma jaaxal la ndax Ousmane Sonko original bi la yor Pape Djibril dem di ko estati Pape Djibril waroon naa xool tamit dëggantaan li li waran ah, li ne ne addéedéet nag du noonu de nit ki da ngay xool li ngay war a def bu fekkee daa bëgg jël ci place Ousmane Sonko ne dem xool ah. de ah, yow yaay wax noonu. wax xanaa bëggoo ko dalal ci li nga doon. kan Pape Djibril. lu tax. yi laay dawal. ah laa bëgg a seeti sax dalal ko. <laughs> Adja ñaari image laa indi. yu bekk jënn jëmm ju leen téye nee nañu nag bële mooy faux bi Ousmane sonk mooy vrai bi góor gi nag ba attaque gi bare génn na nee na day porte plainte <laughs> man de man de pour man ñaar yëpp faux la sax. Hmm. waaw. no ñaari photo yi ñu fi teg taxi bi nekk seen gannaaw. waaw ñaar yooyu yëpp montage la amaa nag beneen bi nga xamante ni nit ñaa ngi ci man jàpp naa ni boobu vrai bi la. non benn bi la. bee dañ eh, plan photo yi ñoo bokkul xaaral Modou war na ko nga xool. bi ak Ousmane Sonko. pa bi ak. Euh, PDF waaw bii laa jàpp bii ki photo maanaam ki photo ba taxi bi génn. waaw bii laa jàpp ni taxi bi. waaw ma ne. bii laa jàpp mooy vraie photo bi. bii nii mais ñaar yee ma njëkk gis. Hmm. benn du ci photo bu baax. Ah man nag li bii de laa jàpp ni moo doon ma beneen bi euh, bii laa jàpp ni mooy foto bu baax bi benn bi la aja gisoo xoola góor gi euh, nii nit ñi nekk ñu fi te fii ci trottoir la ci taxi no plan plan yi ñu ko photo non fond yi ñaar yëpp benn waaw plan yi ñu ko photo laa wax. mi ngi noonu ñaari foto yu bokkul sax. ñaari photo yu bokkul. nee na bii nii. Ah. nee na kenn ki dafa waa kii dafa nekk nële ci côté bi excentré la xaw ma lu mu ko waxee noonu bi nekk nii ci côté waa ji yor t bi. bii mooy vraie photo bi. ah bii la waaw. waaw parce que waa ji jàpp naa ni boobooy vrai waa ji bu ci bokkul woon wala ko fekk jege na taxi bi parce que ñaari falsi yee ñuy wax yëpp mi ngi ci taxi mi ngi ci gannaaw taxi bi. man daal lu mu ci mënti doon mooy. Oh. xam nga ku mel ni euh, waaw bii laa wax ñaari photo yi yëpp benn baaxu ci. ñaari yëpp montage la pour man. waaw baax na kon oh. ok. alaa kulli nag mën ngeen jékki-jékki rek topp monté leen ci kaw. ngeen toog montage moom mën na lu ne. gis nga nouvelle technologie yi mën nañu lu ne. d'accord man du ma weddi dara mais Pape Djibril moom it en tant que euh, koo xamante ni yaa ngi aspiré nekk jiite réew mi. Hmm. Euh, pour man war nga am benn cellule de comme boo xamante ni wala nga am benn ay experts yoo xamante ni dinañ la xoolal photo bi vrai la wala false la yooyu yëpp da nga ko war di sóoraale. Hmm. waaw d'accord. mi ngi noonu loolu tax sax bi ñu ne def na ko ci STM STM moom ku nekk mën naa bind numéro Pape Djibril. estati ñu ne Pape Djibril mais nee nañu def na ko ci page page Facebook ci page Facebook am parce que mënoon naa jékki-jékki def Sa Ndiogou estati ah. capturé ci beneen numéro tasaare ni Sa Ndiogou estati hmm. mais page Facebook moom nee nañu def na ko ca moo tax ma gëm ni numéro bi numéro bi la alaaji noo jàngatee tey li ma indi nii jënd jëmba yanu ñaari nit en def nañ la ko eh. Eh. waaw waaw mi ngi nii eh, <laughs> <laughs> ah bi damay porté plainte yow génn ma. waaw bi ma de. góor gi ah. waaw su kaa jël ko nga estati ko. lu ne ma naan non su kaa estati ko. Eh, génn ma wala tamit bu baaxul. non ñaar yee fals la bi paa bi nekk laa gën a gëm ni mooy vrai photo bi loolu la man kañ li mu wax gëm naa ko. toog bàyyi li ngay def daf ko bëti. man mii yow. alaaji. waaw loo jàngatee sujet bi ngay indi tey. waaw xam nga. Hmm. Eh, eh, Pastef hmm. maanaam dañoo bari doole waaye seen doole ji lekk-lekk hmm. boo yeewoo mën nga koo utiliser jariñoo ko eh, au lieu ñu ne ci seen bopp mais ñu ne ci yow waaw waaw ah, loolu moom parfois il faut ñoom ñu éviter seen doole ji léeg-léeg day liggéeyal nit koo xam ne waruñu koo liggéeyal hmm. parce que dañuy jël ay détails ne ci te xamuñ ni li laa di waxoon ña ngi koy def maanaam nit ki nga wax ci moom lu baax wala nga wax ci moom lu bon yëpp mais del wax ci moom loolu politicien soxla na ko donc ñoom la plupart liñ énergie bi ñu war a def ci seen bopp dañ koy xeexee keneen taxamuñ xamuñ ni kooku ñu ngi koy defal loo xam ni moom lay wër te amu ko parce que yenn yi publicité la boo xam ni mm-hmm. yaa ngi naan Ousmane Sonko Pape Djibril moo tax pareen saay est-ce que du ñoom ñooy provoqué yenn yi pour booy Pastef yi jën leen loolu mooy jubluwaay bi quoi oh. euh, buñ ñëwee nag ci seeni uh-huh. li mu wax euh, ci paa bi daf maa tegalut li paa bi wax parce que dane woo naa paa bi taxal ma tegal leen ay kàddoom mais kàddu yi ba léegi dégguma keneen ki man sax dama defoon sax vidéo bi moo taggee fii de wër naa comme li nga wax nii waaw man dem naa dem wëri ci internet bi xool dafa mel ni vidéo complet kàddu yi gisuma gisaguma ko ba tey kon mënuma jàpp ni wax naa ak paa bi parce que bi mu ma waxee ne ma mi ngi may tegal paa bi ba léegi dégguma paa bi damay bàyyi ba dégg ko ba léegi paa bi soo ko xam ni paa bi ndax moo ko moo ne day plainte wala moom ay waxam la moom moo wax loolu. ngir rek mbalak. Mhm. pour waale wala déedéet. waaw loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk mais en tout cas daal euh, nañu moytu ñu leen di manipuler quoi. nañu. loo tuddee manipuler waaw non xam nga euh, booy kii yu bari yi maanaam rivalité yi ñuy créer. Mhm. Euh, du jariñu Sonko quand même. que mhm. Sonko li la Omar wax rek maanaam. Euh, ku ko yëkkatee ku ko yëkkatiwul mu ngi ci kaw quoi comprendre nga. Mhm. soxlawul loolu quoi loolu yàlla defal na ko moom sunu borom mu ko yëkkati nekkul nit a ko aj ajal. Mhm. donc fi mu nekk sunu borom moo ko may moom euh, li mu nekk sax xamut lan la. tey jii ñi nga xam ne bii bëgg nañ ko sax xamuñu lu tax ñu bëgg Sonko dañuy jéem a expliquer rek ah. Mhm. mais par exemple nga gis nit koo xam ni son bu yow yàgg ngaa gis nit ñoo xam ni dañ laa bëgg te lan moo tax ñu bëgg la dañoo jàpp ni. bëgg nga Ousmane Sonko. Mhm. ba noppi yow ñu gis la jàppee la noo xamante bi lu garaaw la xam nga foofu man damay wax ne bu état bi comprendre woon loolu. Mhm. doon na xam ni waa ji kum ne yawa yawa xam nga loolu bi ñu koy wax fii man jàppoon naa ne état bi gis na loolu quoi mais gisu ko. ok te loolu mooy li nga xamante ni bii mooy li ne. c'est loolu sunu borom moo ko ko defal. man jàpp naa ni loolu lenn rek moo ko mën a dindi. faw Sonko sénégalais yi ñam ko ba bàyyi muy soog a dañ. d'accord maanaam faaw ñu mos ko ba pare te sax mën nañ ko mos sax après mën Sonko bu ñëwee suñu borom tegoon ko mu doxal lépp hmm. mais gars yi dinañ gën a crise di nga fi gisaat leneen. d'accord mbir yàlla la de. léegi Pape Djibril. Sonko moom moo fi nekk ñi ko bañ di di dund ci moom ñi ko ñi ko bëgg di dund ci moom. waaw loolu yàllaa ko defal euh, nit. léegi Pape Djibril statut bi mu def dafa am faute bu ci am comme li Betty wax nii comme fim mu toll balay statut yéen nii war nay xool. non mën na xam nga yow expliqué nga ci problème mu statut bi mën na bañ a nekk ni sax. numéro parti moom en personne. moo ko nekk mën na nekk. dama la bëgg a wax ne la tey jii benn booy mën na toog fële. yaa ngi dégg. Mhm. moom ci boppam mu bëgg a créer rivalité. Ah, te xamu ko Pape Djibril Fall te xamul quoi Pape mën na nekk victime. ci li nga xam ne moom nga kii nii. Pape Djibril mën na nekk victime waaw. yaa ngi dégg mën naa am statut parce expliqué nga génn nga ay faay yoo xamante ne bii mi ngi ci nekk quoi mais ñi koy defal loolu moom it day noppi rek du ko bañ. parce que ñi ngi koy tudd foo xam di ko partager ci groupe yi foo xam ne peut-être gëj nañoo waxtaanee ay mbiram quoi. comprendre. d'accord kii mu ne benn la am naa naa tàggoo. Hmm? su kaa mu ne jeex na. benn la am. kon mi ngi doon ajaa xool noo koy euh, <laughs> baal ko lii la ñu indi woon. ñuy joxante ab dikk euh, ba suba. incha allah d'accord hmm. incha allah merci beaucoup Sonia Diop ñu ngi lay remercier bu baax a baax.